day am solo saa suñ fi dajee ñu koy fàttalante ngir ñëpp di ci bàyyi xel muy gis nañ ne dëkk yëpp am nañu ay ziyaar yu mag yu ñu def ci xalifa yi yi fi nekk Serigne Touba am nañ ay bis yu mag yoo xam ne journée internationale lay doon tey am nañ ay kër Serigne Touba yu mucc ayib la ko waral nag nekkul benn dëkk moo ko def nekkul benn taalibe moo ko def mbooloo yëfa dëkk ñoo def seen bopp benn maase soog a man loolu kon nag loolu dañ koy fàttalee ndax saa suñ fi dajee wax ko waaye nag duñ dañ di ko wax ndax fàttali ci daa am solo te ñuy dëgmal benn ci yooyu ñu lim muy ziar bi biñ mujjee daje ensemble waxtaan nañ ci bu baax a baax ñenn ñi ne ziar ñenn ñi ne bisu xasida waaye ginnaaw waxtaan nañ ak ñi nga xam ne ñoo féete bawal ban juboo ak ci ñoom bisu ziar ziar boobu nag jàppaguñu bis bi waaye jàpp nañu weer bi lii suñu yéenee mooy incha allah bu ñu génnee tam xarit lañ ko fas yéene amal ci seex Cheikh Mouhamadul Mountakha jëwriñ yaa ngi ciy dox nag ngir mën a am bis boo xam ne bisub safinato amaan lay doon bisub tuntu bawal lay doon kon loolu ñoo ngi koy bàyyiloo xel képp kuy membre ci liggéey bi bis boobu nag li nga xam ne loolu la bureau bi tënk ngir képp koo xam ne bëgg ngaa dem muy saw sas wi nga war a joxe mu ngi tollu ci 15000 francs ñetti junni ñetti junni yooyu lan ne képp koo xam ne bëgg ngaa dem ci siyaar bi moom faw danga ko joxe soo ko mën dem ci ziar bi ku ko mën a joxe it te demoo it am ba tey baax na waaye képp ku bokk ci liggéey bi moom ñetti junni yooyu lañ teg ci yow ngir nga joxe ko ci ziar bi ndax daa bokk ci sarti liggéey bi mooy lépp loo xam ne daara ji su mën a ko muy ay projet da nga ci nangu donte yow amoo yéene dem ci ziar ba xëy na am na lu la ngànt wala liggéey wala leneen waaye ñetti junni yi moom ala kulli xaal képp kuy membre ñu ngi sàkku ci yow nga joxe ko muy sartoon te diggante ak mbooloo mi bokk na ci ziar boobu it dañoo juboo ci ne képp koo xam ne nekk nga ak ku dëkk tund Bawol googu te bokkul ci liggéey bi sax ñu ngi sàkk yow nga yegge ko ziar bi ngir bëgg nañu ziar bi ba nga doon mbooloom Safinatoul Amaan képp mbooloom tundu Bawol gépp képp koo xam ne bëgg ngaa dem ci ziar bi boo joxee ñetti junni yi rek incha allah dinañ ànd ak yow dem ci ziar bi ndax am nañu képp ku dëkk Bawol bokk ci liggéey bi te gis nañ ne it ku ànd ak ñun ci ziar bi di nga xemem liggéey bi boo ñëwee mën ngaa tàbbi ci liggéey bi kon ziar bi limité ñu ko ci kenn ku bëgg a dem boo joxee 15000 francs yi rek incha allah bu ñuy dem ñu ànd dem ziar ji loolu it def nañ ci ay cellules ndax bu ñu xoolee dëkk yéen jóge di Bawol ay bàngaas la yi féete penku yi féete saw xool nañ dëkk yi nga xam ne ñoo làng yépp ñu wut benn jëwriñ teg ko fa moom moo leen di laaj seen 15000 francs membre bu nekk sa numéro téléphone mu ngi ci registre bi ak sa numéro euh, carte de membre dinañ ko ko jox moom dina la woo wax la numéro bi nga xam ne ni ci ngay dugal sa addiya loo am dugal ba feek ginnaaw tam xarit mënagunoo jàpp nag date bi exact ndax kilifa moom koy dem ci moom faw da xaar ba am bis boo xam ne nii moo la koy tànnal nga soog a mën a jàpp date loolu nag jëwriñ yaa ngi ciy dox incha allah nañ daan def buñ daan ziyaare ji ndax bii du bu njëkk fañ daan jaar dinañ fa jaar incha allah ba am bis waaye lii suñu yéene nag mooy ginnaaw tam xarit incha allah ci lañ fas yéene ziyaare ji ñëpp bàyyi ci xel ñi ngi sàkku nag ci membre yi féete Dakar ñu góor góorlu ci bu baax ndax liggéey bi dëgg la yàgg na yàggut waaye nag li taxal ñu indi ko Ndakaaru mooy dañu yaakaar ne am koom Ndakaaru la gën a bare ndax Bawol am nay am na mbooloo waaye dajale fa xaalis yombut loolu moom ku ne xam na ko ndax ay jigéen a fa nekk ak i xale kon nag ñun ñu féete Dakar am nañ yaakaar ju rëy ci ñun nañ fexe ba donte cinquante membres ñoo ñoo fi amit na cinquante membres yëpp maase joxe seen addiya ba kenn bañ a manqué incha allah loolu daal ñu ngi ci soññee bu baax a baax.